Euh, Fatima Ba mbër mi di Balla Gaye bi mooy ñetteelu yoon muy amalam ndaje ngir tox tànki jàmm fële ca Casamance mu amal ko fukki fan ak ñeent jàpp ñaar fukk ak benn euh, ci weeru octobre bi ñu nekk Balla Gaye nag euh, dem ci gox yu bëri ñi ko dalal bokk na ci way fipp ya waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo fa teewal nguur ak askan nga xam ne ñoom ñooy waa Casamance ci bërëb yi mu dem bokk na ca Bignona Sédhiou ak yeneen ak yeneen Balla Gaye ne dina def kéem kattanam ba jàmm dellu siwaat foofee ca Casamance dañu dem euh, Casamance fekki fa suñuy natango euh, Bakary Konté Thierno Laurent Mendy. buur lamb ji Balla Gaye 2 nekk ndaw Mali Fara moom ñëw na fii gox yu bëri fii ci Casamance naturel Balla Gaye 2 nekk roi de Guédiawaye moom nag mën lu ko indi mooy Casamance daal di am jàmm. nous tous que la Casamance a traversé. ku ne xam na ni diwaan bi di Casamance guerre bi daf koo sonal. ba tax na buñ amee mbër mu mag mu mel ni Balla gay nekk roi des arènes. ñëw fii ngir waxtaan ak askan wi ci lii di jàmm mu bàyyi lépp lu mu doon def def ay sacrifice sax wàcce ci terrain bi tey loo xamante ni ñun dañ koy rafetlu. am na chance su dajee ci yoon wi ay ndaw yoo xamante ni MFDC ñoo leen yabal. après euh, moom nag fépp foo xam xamante ne dem na fa délégation bi autorité administrative yi dalal nañ leen. ñun jàmm rek lañuy ñuy ñaan kon donc bu ñu demee bay ñaan yàlla jàmm. pour mu defal ñu ko fii nga xamante ne moom mooy Casamance di Sédhiou di fépp foo xamante ne ci région Sénégal la bokk kon donc loolu dafa neex ci biir xol. ngeen jàppale ñu si parce que ay jeunes ñoo koy def ay jeunes moo mun a ñooy dugg ci biir àll bi di wax ak ñoom di jàmm sant ak ñoom ba loolu yëpp mu fas yéene dañ. tey ñu ngi leen di jox suñu bopp ngeen jàpp nañ ci liggéey bi yombal lañu en tant que doomu Casamance en tant que doomu sénégalais. gouverneur bu Sédhiou moom nag di ne jot na tem pour Casamance daal di am jàmm. tous les jeunes doivent s'inspirer de ndaw ñi nekk ci Sénégal yépp war ñoo roy ci kii di Balla Gaye ndax lii mu def. ndax jàmmi Casamance jar na ko Casamance faw jàmm daal di fi am loolu la ñëpp war a dox seeni tànk ngir mu am ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar te Casamance ci biir Sénégal la bokk. avec les jeunes Gaynde Pakaaw moom nag ànd ak ay xaritam nekk ay bërikat ñoom yëngal nañu trop askan bi.